bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabihi alkarim wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi nga xam ne yéen a baaxoo ànd nañu fi seen seen Rafah TV international ci seen émission xamle bi nga xam ne yéen ko baax ànd ak seen mbokk Ibrahima Kebe ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di amaan mbégte bu baax àndaat ak yéen fi seen émission xamle bi nga xam ne ñu ngi ko naan ànd ak yéen dooroon fi ay émission yu aju ci laab rawatina uh, lu aju ci laabu jigéen ñu jotoon wax ci mbërëk li ñuy wax mbërëk te mooy régal rek di ko wax mbaax gis mooy baax jotoon ci wax ay émission waxoon lan mooy dereti baax leeraloon nañ ko waxit uh, lan moo ci gën a bëri ak lan moo ci gën a néew nan la ko jigéen gi di gisee yooyu yëpp waxtaan na ci waxtaan ci jàngale diine waxit xeeti jigéen yi am kenn ku nekk na koy gisee waxoon kii doog a tàmbali ni ñu koy gisee ki ko ko mas a gis mooy ki ko baaxoo gis rek nan la koy gisee ak ki am it nan la koy gisee léegi nag waxoon nañ lim bi nga xam ne moom moo gën a néew ci laab laab gi am diggante règle ak règle gën gaa néew dana mat fukk fan juróom waxoon nañ ko léeg-léeg mën na koo yées waaye su boobaa kon deret yi amaat diggante laab gu njëkk maanaam bu fekkee nit ki daal laab ci lu matut fukki fan ak juróom deret yi mu njëkk gis ak ji gisaat ginnaaw bi dañ koy jàppe benn yooyu moom danañ ci waxtaan ñu ni ne buñ dajee tey danañ waxtaan ci nan la nit ki di limee bis ak bis bu dee dagg di dem ko dikk nan la ko war a limee loolu moo war a doon suñu émission tey euh, ginnaaw bi ñu xamee ne euh, règle jigéen gi boo ko gisee lu ëpp lu mat fukki fan ak juróom rek na xam ne la ca topp jàngoro la fukki fan ak juróom yooyu nag mën naa ñëw ñëwandoo maa mën na ko gis mu continuer ndoo masalan ci kuy doog a tàmbalee gis rek mën naa gisandoo fukki fan ak juróom ñu tegaloo bu xasee ba mat fukki fan ak juróom bu deret ji taxul rek na xam na nag léegi da ci des feebar la ndax deret régal du weesu fukki fan ak juróom ci dañ ko waxee woon léegi nag bu fekkee da ko gis ñaari fan toog benn fan gisu ko gisaat ko gisu ko nan bu demee ba li mu koy gis mat fukki fan a juróom nan la koy xamee loolu moom lañ war a jàngale tey euh, benn jigéen gi gis deret règle mu toftaloo mat fukki fan ak juróom su boobaa lool leer na wax nañu bu ma tey fukki fan ak juróom rek fa lay yem nekk sangu commencé jullee ka woor bu fekkee ci koor la ne te xam ne léegi feebar la la ci des na moo na jéem a faju si bu fekkee ne dafa gis règle ñaari fan ñett toog benn fan gisu ko gisaat ko gisu ko gisaat ko gisu ko te waxoon nañ ko ne ko boo ko gisee fukki fan ak juróom na nga taxaw nan lay xamee ne fukki fan ak juróom mat na ndax boo ko gisee tey suba ko gis suba dañ naan ko bis yi nga ko dul gis bul ko bul ko limaale tey samedi da ngaa gis règle gis ko dimanche toog altine gisoo ko altine boobu doo ko ci bàyyi doo ko limaale talaata nga gis ko dangay ngay limaale talaata àllarba nga gis ko doo da ngay limaale àllarba alxames gisoo ko doo limaale alxames maanaam daal ci gàttal mooy booy lim bis yi bis yi nga ko gis rek ngay lim waaw léegi nag bis yooyu nga ko gis euh, man nga koo lim muy di ko topp di ko lim ba mat fukki fan ak juróom ba xasee mat fukki fan juróom rek taxawal. ci misaal tey bu fekkoon ne nit ki da koo gis juróom-benn fan six jours juróom-benn fan toog ñeenti fan gisu ko gisaat ko ñeenti fan kon day jël ñeenti fan yi mu ko gis plus ko ca juróom-benn fan yam ko gisutu maam dolli ko juróom-benn fan yam ko gisutoon muy fukki fan léegi mu toogaat bu fekkee gisaat fukki fan dafa da koo gisaat diggante bi mu amee fukki fan ak bi mu gisaat ko diggante bi li fi doxaat mu fukki fan ak juróom ba tey day continuer waat di boole yi bu dee ma mat fukki fan ak juróom nag yoo xam ne gis na ko deret te taxawul bu jàppale nag li ci des feebar la daal di sangu ci ba tey noonu lay demee nga xam ne kon bis yi muy gis deret ak yi mu ko dul gis bu fekkee diggante bi mu fukki fan ak juróom day jàpp ne bis yi mu koy gis yëpp da koy jël boole ko su ko boolee ba am ci fukki fan ak juróom rek na yem foofu na xam ne deret ji foofu la mën a yem mu dem sangu ci kon loolu mooy benn point bi bu dee beneen point bi nag mooy bu fekkee dafa gis deret lu matul fukki fan ak juróom toog gisu ko te lam toog mat fukki fan juróom bu ko gisaatee dañuy jàpp ne lii régal ju bees la deret ju bees la ndax wax nañ ne euh, fukki fan ak juróom boo ko toogee gisoo ko boo gisaatee rek da nga jàpp ne lii jeneen deret ju bees la waaye bokkut ak deret ju njëkk ji doo leen bu fekkoon jigéen daa gis tey boo ko gisee tey gis ko suba muy ñaari fan ci misaal mu toog fukki fan ak juróom gisaatu ko bu ko gisaatee dañ naan ko du kenn ko boole dañ naan ko léegi lii dara ju bees la ndax régal maanaam laab ak set bu matee fukki fan a juróom rek kon dara joo gisaat ginnaaw ba dara ju bees lay doon wuuteeg li njëkk a wax nga xam ne tey danga nga koo gis toog lu mat ñaari fan ñett fan gisaatoo ko wala boo toogoon fukki fan sax gisaatoo ko boo gisaatee dangay jël limbu bees bi boole ko bu njëkk ba boo ko dee boole ba am ci fukki fan ak juróom daal taxaw nga xam ne kon noonu lañ ko gisee noonu la ñuy calculer bi pour tënk rek mooy ma wax ne euh, bu fekkee da koy gis muy dem muy dagg man tey mu gis ko subaa du ko gis day xool bis yi mu koy gis boole ko bu demee mat fukki fan ak juróom te dara ji arrêté wul mu taxaw te jéem a sangu jéem a faju ji na xam ne dafa feebar waaw bu dara ji arrêté ci fukki fan ba tey baax na na sangu sa xam ne la laab na loolu mooy bu fekkee da koy gis muy dagg te diggante bi mu ko bi muy dagg matu fukk fan ak juróom bu fekkee da koo gis muy dagg mu dagg toog lu mat fukk fan ak juróom gisu ko mu gisaat ko na jàpp ne deret ju bees la waaw ndax limub laab maa fukki fan ak juróom mooy limub laab bi nga xam ne moo gën a néew fukki fan ak juróom boo ko toogee gisoo deret xamal ne laab nga waaw wuuteeg nag tey boo toogee benn fan gisoo ko gisaat ko xamal ne yaa ngi ci réglé ba tey bis yi nga ko dul gis da koy bañ a limaale rek comme ñu ko leer loolu xam ne kon noonu léegi noonu la ñuy calculé bisi waaw man daanaka naa wax ne la buntu euh, régle maanaam mbaax yam gis mbaax liñ ci doon wax moom mu am leneen loo xam ne it mënees na ko waxaale xaw naa jege baax mooy wasin jigéen boo amee doom ni ki noonu day gis deret waaw wala baaxoo naa gis deret euh, deret jooju mooy deret wasin dañoo wax ne deret la joo xam ne day ànd ak xale bi judd wala mu génn ginnaaw xale bi bu ñu doon xam ne lan mooy deret wasin mooy dañ naan deret la juy génn ci kanamu jigéen te buy génn day ànd ak doom ji génn wala mu génn ginnaaw bi doom ji génne ba noppi lu mat a baxeel mooy deret jox xam day ànd ak doom ji génn wala mu génn ginnaaw bi doom ji génne ba noppi loolu bu ñu la ko waxee dañu laa bëgg xamal ne kon deret ji génn avant doom ji génn loolu kenn du ko jàppee régal dañ koy kenn ko jàppee deret wasin waaye dañ koy jàppee régal waaw ji jigéen gi gis avant mi am doom moom loolu dañ koy jàppee régal jim gis bi muy am doom ak jim gis ginnaaw bi mu amee doom ba noppi dañ koy jàppee euh, nag euh, deret wasin waaw ah, deret wasin nag moom gën gaa bari li ko jigéen di gis mooy fanweer juróom-benn fukki fan mooy ñaari weer waaw bu amee bu amee bu amee doom mën naa toog di gis deret waaye deret jooju bu ko dee gis ba mat ñaari weer maanaam juróom-benn fukki fan te taxawul nag na sangu te xam ne nag léegi dafa feebar deret ji feebar na su boobaa nag na dem jéem a faju ji waaw bu fekkee li ko gis matul fukki fan ak juróom mu dagg mu gisaat ko mu dagg day defaat comme ni ñu waxoon rek da koy boole su ko dee boole ba am juróom benn fukki fan mooy ñaari weer te taxawut ba tey day sangu ji maanaam daal deret wasin du weesu juróom benn fukki fan waaw benn mu am doom gisandoo deret dana ji ne ba mat ñaari weer su boobaa na taxaw dem sangu ji waaw bu fekkee dafa am doom gis deret lu mel ne fukki fan ak juróom toog ñaari fan gisu ko toogaat ay fan gis ko toogaat ñett fan gisu ko toogaat ay fan gis ko boobaa day xool bi yi mu koy gis rek dajale ko bu ko dee dajale ba am juróom-benn fukki fan mun naa ne nag juróom-benn fukki fan la deret ji yem léegi nag li des kon feebar lay doon naa yem foofu boobaa noonu la ñu calculé deret yi eh, nag bu fekkee ne dafa gis deret wasin deret ji dagg mu toog lu mat fukki fan ak juróom gisu ko su boobaa jeex na kon su gisaatee deret na xam ne règle la waaye doon tudd deret wasin kon loolu règle la waaye doon tudd deret wasin waaw ni ko noonu deret jigéen ne diggante ñaari seex ba tey ci deret wasin lañ koy jàpp fekkoon jigéen gi daa am doom tey toog lu mat weer amaat jeneen doom dañu jàpp ne ay seex lañ parce que seex bu ñu ko waxee mooy ñaari xale yoo xam ne magantewul ñu mat juróom benn fukki fan maa ñaari doom yu judd donte kii daa judd tey ñu toog weer kee judd sax ay seex neen leen jàpp li fi magantewul ñaari weer rek ay leen jàpp nit ñi nag dañoo jàpp ko xam ne ñaar ñu juddoo dëgg la la waaye ba tey ñaar ñu magantewul ay ñaari weer ba tey dañu doon ay seex te loolu mën naa am nga gis na kon deretu wasin noonu lañ koy calculer moom it maanaam deretu wasin gën ngaa bëri juróom-benn fukki fan la gën gaa wér na bu ñu ko waxee mooy loo xam ne bu continuer waaye mën na koo gis ñaari fan sax mu dagg jigéen mën naa am du gis deret ñaari fan benn fan gis ko benn yoon mu dagg mu toog fukki fan juróom gisu xasee toog fukki fan juróom gisu deret rek na xam ne léegi leneen lu mu gisaat jeneen deret ji bu bu toogee fukki fan juróom gisu gisu maanaam bu deret génn ci moom mu toog fukki fan juróom gisaatu dara bu deret ñëwaatee na jàpp na léegi nag duggaat na ci règle mu ngi commencé gisaat règle su boobaa da koy limé kon nañ ko waxee woon nekk doon jigéen gi gis régal bu gisee régal toog fukki fan ak juróom gisul régal bu gisaate régal na jàpp ne lii régal ju bees la léegi dafa gis régal toog ñaari fan gisu ko toogaat benn fan gis ko day boolee deret yi waxoon loolu leeral nañ ko ba noppi daanaka du aajoo ñu ci gis na kon deret régal ak deret yi wasin daanaka ñoo bokk ñu leen di jàngate li ci martas am solo rek mooy ñu xam ne deret wasin ñaari weer la mooy juróom benn fukki fan deret régal gën ngaa bëri eh, fukki fan ak juróom du ko weesu deret régal bu weesoo fukki fan ak juróom feebar na dé deret wasin bu weesoo juróom juróom benn fukki fan feebar na waaw léegi nag mën naa bañ a egg foofu mën na koo gis tey mu jeex waaye boo ko gisee mu jeex nga toog fukki fan a juróom gisaatoo ko nag kon laam nga léegi nag loo gisaat day nekk régal doo am ni ko noonu noonu ñu waxee ci régal wax ko ci deret wasin waaw léegi nag ñoom ñaar ñoo bokk ay at daanaka ci li ñuy tereek ci ci ak ni ñu daggeek ni ñu leen di maanaam dajale da ngeen dajale comme tey li ma waxoon tey boo gisee ñaari fan rek gisoo toog benn fan gisoo ko gisaat ko ni nga koy dajale ni ki noonu ci deret yi wasin noonu nga koy def boo boo boo nit ki jigéen gi bu doom ñaati fan mu gisandoo deret toog ñaari fan gisul deret ñaari fan yooyu mu gisul deret du ko lim day toogaa yeneen toogaa yeneen ñett fa gis deret day lim bis yi gis deret bu demee ba ma juróom benn fukki fan nag mu yem fa daal di sangu nag te jéem a faju wax comme ni ñu ko waxee rek nga gis na kon loolu mooy li aj woon ci diggante euh, dereti règle dereti wasin mu des nag laab jigéen gi nan lay xamee ne laab na waaw nan lay xamee ne laab na laab ñaari mbir moo koy wane ba ci njëkk mooy li ñuy wax mu gis am ndox ñaari jigéen jigéen ñi mën nañ ko loolu jigéen ñi lañ ko xam mooy buy laab am ndox mën naa génn ci kanamam cay bisa jamono ji muy gis règle bu dee ba règle bi jeex muy laab mën naa gis am ndox ci kanam mu génn loolu li muy tegtale mooy ah fan fa dara ji doon génne foofu set na foofu moom bu ko gisee maam loolu doy na sëkk laab loolu moo gën a mën a tegtale laab sax loolu moo gën a firndeel ne jigéen gi laab na maanaam raygalam jeex na wala sax gisul ndox mi waaye daa dem bu bërëb ba daa far maanaam ak kanamam dafa jekki-jekki maanaam gisatu fa dara mu wow nga xam te bu jëloon am morso dugal ko fa bu génnee du taq dara du def dara kon su boobaa loolu dañ koy jàpp ba tey na nga xam ne kon laab ñaar yi boo koy wax mu gis ndox ndox mu xaw a yor couleur yu nga xam ne dañuy wax dafa xaw a jege ci dóomu taal xaw a ndox lay doon daal du doon deret la kulli xaal ñoo xam ne nag jigéen ñi dëgg ñoo koy xam waaye ñoom boo boo buñ déggee boo expliqué da xam dëgg-dëgg li nga jublu wax bu gisee ndox moom moom na xam ne laab na bu fekkee nag dafa dem ba laab te gisul ndox mi waaye gis deret ji génnatut ci misaal mu jël aw morso wala dara euh, dugal ko ci kanam morso wu génn sedd ci donte xëy na mën naa tooy ay am ay tooy doy ndax euh, waaye taxul deret na jàpp ne ba tey laab na waaw léegi nag bu fekkee ne dafa njëkk gis ndox mi moom laab na jërutul muy jéem a xool morso yooyu mel waaye bu fekkee dafa njëkk a morso bi mën naa mën naa euh, xaar ndox mi bu fekkee xaar na ko ba waxtu julli jot te gisu ko mu jàpp laab na daal di sangu sangaay ni ñuy sangoo sangu farata daal di commencé nag jullee ko war nga xam ne ko ci tënk lii mooy attey laab yu aju ci diggante règle ak dereti wasin mooy dañoo dereti gësin xam ne noonu lañ koy jàngate ci diine nga gis ne lu simple la jigéen bu ubbi sama xel mën nga koo xam bu baax te du aajowoo ngay sukkandiku ci ay application comme ni nga xam ne noonu la siiwee ci jamono bi xam nga jamono fi ne dem na ba léegi nit ñi yu bari duñ ko xam jafeel gi ñu koy jafeel tax na ñoo xam dara ci yëf yi waaw da gis ñuy sukkandiku ci application laaj yi docteur ak dëgg mën nga boo xamul da ngay laaj waaye lii boo ko xamee nii lu yomb la lii du simple la ay calcul la yooyu def sam xel aajo woon nga egg fenn fi ci xam-xam wala dara dañ naa la nii lay doon fukki fan ak juróom la jigéen di gis règle du ko weesu mën na faa bañ a egg waaye bu daggee ci diggante bi te diggante bi mu dagg matu fukki fan ak juróom dara ju njëkk jaag ju ñaara ji dañ koy jàpp jenn règle bu ko dajalee ba matu fukki fan ak juróom day laab bu fekkee daa dagg mu toog fukki fan ak juróom gisu ko bu ko gisaatee day jàpp ne deret ju bees la day commencé compter waat waaw deret ju bees bi ñu ko waxee mooy maanaam règle ju bees la daal léegi nag da ngay compter waat ci misaal jigéen bi daa gis règle ñetti fan toog fukki fan ak juróom gisu ko gisaat ko li mu gisaat day jàpp ne règle bu bees léegi nag day commencé waat woon jàpp ne mi ngi doog amaat benn fan ñaari fan ñetti fan wax ak yow ci tënk ngir bañ a lëntalaat lii mooy li nga xam ne moom lañ bëggoon a jàngalante ci la ci wàllu euh, règle deret règle deret yi aussi ñaan suñu borom def liñ ci wax lépp muy kàddu njariñ ku ci am ay lënt lënt wala ay na ko yónnee ci euh, Rafah TV international ci numéro yi wala mu dugal ko ci commentaire rek bu ñu ko gisee incha allahu taala danañ ci indi ay leeral wa axir daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu